ni waruñu ko yemale rek ci mettre lu bàyyi non non non parce que mom Barthélémy Diaz c'est un habitué des faits yagna naa wax wax yu mel nii vraiment le le le le champ politique euh, euh, acteur politique ñu jéem a teg ay loi yoo xamante ne man loolu laay proposé te loolu la mouvement national des arabisans républicains di proposé euh, ñi ngi ci dialogue national nañu jéem a xool nan la ñuy dugalee ci biir loi boo xamante ne soit dañ ko yóbbu après assemblée nationale ñu voté ko en tout cas dana nekk loi boo xam ne képp koo xam ne da ngay aspirer à diriger ce pays wala ngay aspirer à diriger euh, une mairie wala benn suffrage bu sénégalais yi daal en tout cas ñu tegal la loi boo xamante ne yenn déclaration yi nga xam ne dafay indi affaire u xeet ci réew mi wala muy indi affaire religion wala muy indi affaire régionalisme yooyu yépp képp ko waxati loi boobu ñu wala mu dal ci sa kaw ñu soit ñu suspendre la. discours euh, ethnocentriste wala discours euh, en tout cas religieux euh, kenn moko fi di ji ah, kenn moko ah, ah, ñep xam nañ ko ne ne ko bandu te lolu maki moko mo non est-ce que du loolu moo pousse ñeneen ñi ñu dugg ci discours yooyu. dedet non xam nga ne da ko bandu mak Sall fi la ko fekk. waaye moko wax moko ko non non non déedéet fë ko c'est-à-dire loolu dafa fekk xam nga ay proverbe la yo xam bo boo ci olof yi am nañ ko. bo demee ci xalpulaar yi am nañ ko bo demee ci jola yi am nañ ko lolu ci suñu aada la bokk. way mom mais way mom da dem ba ci mbokk mi mu ne nee na ko bandum. mais sa mbokk waaw mais lolu xam nga nit ku nekk. bo campagne électorale. Euh, xam nga luma luma lay bëgg ñu xam. da hmm. japp na né sax xam ngeen ko yeen ñep le vote au Sénégal hmm. vote affectif la ñep xam nañ ko ku ne xam na né Sénégal depuis Macky Sall excès à la tête ba légui hmm. amna yu wër yo sénégalais amul ben sénégalais bu ko yegul bu ko gisul. waaye de justice. maa ngi parce que da nga cité léegi problème mu courant bi wax problème yeneen question mhm. problème mu courant jàpp naa ne tey mooy fexe ba courant bi doy sëkk. waaye maintenant le prix le prix ñu door ci xool jàpp naa ne sénégalais yi courant bi am te cher moo leen gënal mu ñàkk am loolu ku ne loolu jàpp naa ne d'accord nañ ci deuxièmement problème mu courant bi li ci Macky Sall def dañ ko ci war a delloo njukkal maanaam euh, dafa dafa battre un record. pourquoi parce que hmm. Sénégal ku ne xam ne am na léegi autosuffisance en électricité loolu moom leer na. te bor bu te te maa ngi ñëw boru état bi eh, boru état bi. non non je termine d' abord sur sur l'électricité parce que 2012 ak 2019 wàññi nañ ci courant deux fois hmm. bi ñu egsee 2019 mu falwaat mu xam ne sénégalais yi par rapport à son programme mon équité sociale équité territoriale wala mu gis ne le ëpp ci village sénégalais yi bi légui bu njëkk électricité mënon na baña a nekk won sax une nécessité li su la rek mais légui c'est une nécessité benn groupe ñoo nekk Dakar diko contester parce que ñom lool moy seen liggéey manifestation contestation parce que ci loolu ci lañuy dund loolu moy loolu moy seen gagne pay donc mën na ci nekk mais la majorité des sénégalais d'accord nañ ci programme bobu bala xalaat bobu nga xam mom le président Macky Sall teg parce que bor bi bor bi bor bor état du Sénégal. Sénégal ndax dañu yokk man jàpp naa ne waa waa banque africaine développement parce que dama lañu fi jógee. journaliste ngeen yaakaar naa dégg ngeen. satisfecit bi ñu joxat bi ñu def Sénégal ci wàllu ci wàllu économie. mais mais taf yëngal la rek loolu waaw waaw bu fekkee ne banque isla banque africaine de développement ñooy taf yëngal loolu yow sañ nga ko wax mais man du ma ko wax parce que ñooñu ay ay ay ay économiste lañ ñu chevronné ñu xam seen liggéey ñoo xamante ne Quel monde leen ger loolu problème parce que la première puissance mondiale presque mën naa wax en les États-Unis d'Amérique la France dafa endetté amul ben réew ci àdduna bi parce que l'économie, àdduna mooy dox noonu surtout nag ñu nekk dans un pays en voie de développement mais jàpp naa ne euh, li nga xam ne mooy économie euh, président de la République une décision transformer ko surtout parce que ku ne que une économie de de de 1960 à 2012 dara ci donc il a fallu mu initier le PSE à la transformation structurelle de l'économie fexe ba la l'industrialisation teg tegaat ko ci raay bi fexe ba infrastructure Sénégal am ko te infrastructure gënu gën a gënu cee am solo ay yoon mu fexe ba euh, Dakar ni mu meloon mu soppeeku complètement et je pense que yoon woowu ci le nek diggante bi nag dana am ay difficulté ku ne xam na ko parce que boo bëggee changer dëkk mel ni Dakar andi fi lu mel ni TER indi fi lu lu mel ni BRT te euh, ku ne xam ne dëkk bi ni mu xatee je pense que loolu diggante boobu il faut que mu am ay difficulté seen der dafa ci seen dafa dama ko xaraamal yàlla daf ko xaraamal ci seen diggante maanaam dañu war a fexe ba yàq daru doomu adama dafa garaaw mm-hmm. te doomu adama tant que justice épinglé wu ko justice la wax de waxuma nak ben organe de contrôle parce que organe de contrôle ña nek ay doomu aadama rek lañ. te itam ñi nga xam ñoo ñi wax ne dinañ épinglé xam nga man le problème moy dama d'accordul won depuis le début même jamonoy Ablaye wad mm-hmm. bu ñu daan def conférence de presse muy l'ARMP muy yenen IGE di di di tek sur la place publique yenn yenn rapport yi man dama ci d'accordul xam nga te xam ne nag réellement dañu xam ne ñoom def nañ mm-hmm. ñoo ñu man lima ma li ma xam ne moom laa jàpp ne moom lañ def mooy mooy démissionné. jox dañu waroon démissionné jox bàyyi seen yoonu justice mu def liggéeyam ba pare bu mu demee ba ca cappaandoo ko mu wóor na defuñu dara maa je pense que daf loolu daf leen gën a yëkkati daf leen di gën a joxaat cër daf leen di gën a joxaat crédibilité su ko defee ñu continuer di def seen liggéey loolu wàññiwul dara projet de loi portant modernisation de daara processus bi yëpp dañ ci bokk ba mu ba ba ba ba fi mu yem euh, kuréel yi nga xam ñoo fi nekk dajale yi aussi dañuy liggéey ak ñoom. mu fexe ba defaraat ay loi loi lañ ci projet de modernisation de bi acteurs yi nga ñoo maintenant dañu nekk réew moo ne parce que dafa bari ay groupe de pression mais man d'accorduma ci état bi jël procès de loi boobu muy traîné. amul raison bu ñu jël procès de loi boobu mettre ko dans les tiroirs dañ ko war a yóbbu assemblée nationale avec tout le courage ñu voté ko ñu xam ne bi dafa dox sëriñ daara yi xam parents de parents xalé yi xam né amna ay loi ak ay règlement yu am ci réew mi xalé dañ ko wara sam dañ ko wara ar amna yo na yoo dafa jaadootul lolu nak pour mu meuna a am il faut que état daara yi ñu réglementé ko ba duñu ñu kenn kum neex rek nga ubbi daara non jamais loolu xam nga man dama dem Arabie Saoudite dem Qatar dem ci réewu arab yi nga xam ne tey fii ñun ñooy ci wàllu alxuraan ak njàngin mu rafet ñooy suñu référence loolu amu fa daara yi ma ak jànge man loolu amu fa dégg naa ay ñu bare bare naan ñoo naan jéng nañ ma mais loolu c'est une alxuraan digalul kenn mu jéng xale l'islam digalul kenn mu jéng xale gis